dal leen ak Mati 3 Pommes moom nag dari di nay génn tamit yëkkati ay kàddu yoo xam dal daal mu ngi ñi nga xam ñoo di wa APR eh, après déclaration président Macky Sall ginnaaw bu mu waxee que ne nag du bokk si élection yi ah, loolu mel sax tax ñu gis tey jii nii nag ay jeunes yoo xam ne ñu ngi daw di def seen eh, eh, manifestation daal nañ ko mën a dañuy manifester am di daw jëmale sa palais ba daal di wax que ne di président Macky Sall ñoom dayo lu ñu euh, maanaam ñàkk bokk gi nga xam ne ñàkk na élection yi nekkul loo xam ne daal ñoom bëgg nañ ko d'accord naan si ba tax ñuy manifester jëm sa palais ba kii nga xam ne nag di Mati Trois pom moom nag kaddu yi nga xam ne jëmale na ko si ñi di waa APR mi ngi wax que ne nag ñoom ñu si bare bare bare maanaam xamuñu fu ñuy teg seeni tànk maanaam daal yàq na leen lu mel ni xamee kaddu yoo xam yu ñaaw yoo xam ne daal mën nañ koo dégg dëgg moom wax na ko ñi di waa APR yi moom mel ni daal moom dafa am lu ko metti après déclaration président Macky Sall bi nga xam ne wax na ne du bokk bari na si ay morom daal yoo xam ne am nañ lu leen metti lool ginnaaw déclaration président Macky Sall bi nga xam ne dafa wax que ne nag du bokk si élection atum vingt 2024 yi nga xam ne mooy ñëw